combat le 6 mooy dàq ci at bi ak at yi ñëwoon la war a a xeex loo xamante ne ñu ñëw ay cinq minutes yi noonu ku affronté Lac de Guiers 2 affronté Balla Gaye xeex ak ñoom ñu reculer xeex ak Ama Baldé mu reculer xeex ak ñëpp ah bu nee dama pare man li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom dóorante ba ne ba ne saay ba mar naan dem naa leen ni wax man loolu laa gis bu la neexee bu def dara dinaa def dara kay waaw kon day gën a neex rek mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mardi 18 octobre 2022 ñu ak yéen ci yéen kaay ma ca ak Boucar Ndour Kor Mama borom Sine ak Saloum maa Omar maa di la nuyu di la ziar mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV Omar ni ñu ko waxee rek tey nekk mardi 18 octobre. 2022 Omar ñu ñëw kenn si yéen kaay di nuyu nag waa Mbirkelane FM di jë Babacar san maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu nag waa Vache FM depuis Gambie di jëmoon na ngi koy nuyu di ko ziar bu baax di nuyu Père Ndongo Cissé depuis Gambia di ko ñaanal gudd fan di nuyu waa Gambie yëpp yëpp yëpp Omar ah, ak waaw waa Sénégal Sénégal bi daal ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp Omar. Sénégal bi xam ah, nga benn dëkk la nag kenn mënu koo xar ah. ñaar journal bu suñu làmb Bokar ci xës xëtam gu njëkk dafa daal di fësal ki nga xamante ne ni moom mooy Mbaye mu ci ay kàddoom di ko jëmee ci combat bi war a dox Siteu ak Papa jàpp na ne nag Siteu moom dafa war a xeex ak Papa su bëggee am ndam ci combat boobu. Siteu dafa war a xeex ak Paka ak Papa Sow autant pour moi su bëggee am ndam ci boobule combat loolu waxi mbay Diallo la bi nga xamante ni te yaakaar naa ne tey Omar kenn dootu ko présenté si làmb waaye tamit yaakaar naa ne jiite tamit li nga xamante ni rek yaakaar naa ne moom mooy euh, euh, association nationale bi nga xamante ni maanaam tey. moom mooy responsable école yeeg école su ma juumul daal waaw ANELS ah moom moom moo leen jiite waaw no association des entraîneurs du Sénégal autant pour moi dama juum moom Père Mbaye Diallo rek nekk Pikine mooy yëkkati nag ay kàddoom wala mooy def ay analyse am rek ci boobule combat xam le combat Omar na ñëw xeex mhm. waaw loolu la la Père Mbaye Diallo wax. Siteu moom ndax xeexkat la. waaw xam naa loolu la bëgg rek Siteu même bu nekkul xeexkat peut-être dafa jàpp ne loolu lay si combat bi parce que jàpp na ne Papa Sow dafa am crochet droit boo xamante ni tey c'est un crochet a boo xamante ni waaw combat combat choc la war a nekk. li wóor te wóor Boucar mooy Siteu am na gauche boo xamante ne nii néew na mu dal mbër mu résister ko. waaw parce que xam nga nag gauche nag Omar en général day nekk tooke. si boo gisee ku nekk gauche sax Omar en général day mun football day am tir ak yu demee noonu peut-être looloo tax rek moom Siteu gauche am fatal waaye ak lu a loxo droitam bii. mu takk xam nga lu mu si takk nii. ku wel dina laaj nees. moytul mu dal la en tout cas daal combat la boo xamante ni tey kaw mën na si am. kaw mën na ci am waaye rek yaakaar naa ne bëre bu rëy dina am seen diggante ñoom ñaar parce que bugga ñaari mbëri xas-xasloo nañu ci façon xas-xasloo bu nekk waxtaan nañu ci façon waxtaan bu nekk ñëw ba stade làmb ji ne du am ñu tëggaat ko woowaat leen mu nekk làmb joo xamante ne ni ñoom ñaar dañoo war a tàkkalikoo pour renforcer beneen chambre VIP bi ne ci kaw. waa pour renforcer Omar tey VIP yi nekk ci kaw Omar waaye daal en tout cas euh, combat la boo xamante ni tey enjeu yu bëri na si ñaari mbër yëpp moo tax tey li ko ni koy waxee rek tey ku si daanu moom Omar yërëm naa la ku ci daanu rek dañu lay daal yërëm ñeneen ñi nga xamante ne tamit ku fa daanu dinañ la yërëm muy waa kër Double Less yi Balla Gaye numéro 2 war a ñëw le premier janvier digganteem ak booy Niang numéro de bu fa jógewee Sa Thiès war a ñëw le 5 mars digganteem ak Reug mu war a nekk combat yoo xamante ne nii combat yu métti lay doon ci seen kër ci waaw combat yu métti si seen kër si 2023 bi Omar waaye bulet parce que ñoom ñaar yàgg nañ di bëri si benn at ak lu mën a xew rek ñaari mbër la yoo xamante tey Omar tey euh, a waaye ku si nekk tey yaakaar naa ne say victoire ñu ëpp li nga xamante rek tey Omar moo di say défaite Balla Gaye moo war a nekk au front le janvier incha allah rabi si digganteem ak Boy Niang mu nekk nag combat choc combat capital la si moom parce que boo di dégloo sax si seen discours wala rawatina discours waa Guédiawaye tey Balla Gaye roi des arènes bi mu leen andil sax peut euh, euh, daan Boy moo leen koy gënal parce que tamit mooy enjeu wu combat bi rawatina euh, na ne derby bi lay nekk rawatina combat bi ni waaye moom Sa tamit war a ñëw nekk au front le 5 mars incha allah rabbi digganteem ak rëg-rëg moom tamit mu nekk combat capital boo xamante ni tey parce que rëg-rëg daanoogul a relever ak lu mën a xew ñaar ñëpp Omar am nañ sas ñu naan ñëpp am nañu sas waaye nag li ci ëpp solo rek moo ñu def ko ci dans les règles de l'art mu neex bari ambiance comme ni ñu leen xamee ci ñoom jàmm ak salaam bi nga xamante ni ñu ngi koy prôné boobu ba léegi ñu am ci yaakaar rek ménager Modou Lo bi itamit yëkkati na ay kàddoom assise nee na Modou ba léegi déposé wul certificat de guérison pour wane ni moom wér na Modou Lo ba léegi déposé gul certificat de guérison pour wone ne wér na loolu wax yi Assis Sele bi nga xamante ni day peut-être mën nañ jàpp ne moom yore mm, licence su jamono ji parce que yaakaar naa ne Birame ñi ngi mu nekkoon manager waaye dafa mel ni a xew de guérison boobu noonu tey ne euh, war na ko war a mën a déposé bu yàgg su fekkee ne wér na même su fekkee ne wéragul ba léegi tamit yaakaar naa ne tey day andiwaat rek beneen certificat médical parce que en général médical euh, bu ñu la ko defalee euh, su fekkee ne jeex na da ngay loolu moo nekk nga li nga xamante ne tey moo nekk yoon kon laa yaakaar ne loolu yëpp Omar tey war nañ si war a mën di def ay gëstu CNG bi tamit yu mel noonu tey moo tax te seen liggéey nekk fi bira seen récemment bi mu ko mujjee jël waxoon na ne Modou Lo bu déposé certificat de médical wala certificat de guérison ba yenn jamono ñoom dañ koy convoqué mu andi ay explication te yaakaar na loolu yëpp gisaguñ dara am si yaakaar na ne daal a xew daal Modou Lo déposé gul certificat de guérison kon ñu waaye ak lu mën a xew tamit ñu ngi gis mu ngi entraîné kon yaakaar naa tamit cambe tamit peut-être ñoom tam duñ nelaw parce que mën na jékki-jékki rek déposer certificat de guérison promoteur bi jàpp dat fekk cambe tamit pare ñu yaakaar naa ñee tamit yàgg nañ ci làmb xam nañ ne peut xam nañ leen war muy ay entraînement xam naa ne ñoo ngi ci waaw ñoom nag ngi ci parce que le 5 mars le 5 février la ñuy ak Gris Bordeaux buñ xam na ci la ñuy mën a wax waxu combat Modou Lo ak Ama Baldé waaw loolu yëpp tamit mooy li ma wax rek en tout cas ak lu mën a xew daal Omar euh, euh, ñaari mbër yooyu tamit Sénégal yëpp ngi xaarandi combat boobu noonu diggante Modou Lo ak Ama Baldé kon dafa jot tamit ñu ñu ñu concrétiser boobu la komba bari ko ñaari mbër yi mën a jàll ci leneen. ñaar bu ndaw démb wala barki démb wane na boppam bu baax a baax ci géejuwaay gi mu dëkk woo fa presse bi def open presse am ak ki nga xamante ne ni mooy armée bu ngéwél ñaa bëggoon ndaw mi ngi koy xamal ni man maay xale te man maa war a dem. dimanche bi incha allahu rabi la ñu war a bëre Omar mu war a nekk na combat bu neex combat espoir parce que ñaa ndaw ku ne xam ne day déggagul muñal nekk xale boo xamante tey mu ngi def ay exploit mu ngi def ay preuve am ci làmb waaye armée bu ngéwél tamit bi mu am nekk xale boo xamante ni tey macha allah ah, mu ngi wone boppam mu ngi góorgóorlu mu ngi jaayante ñu war a bëri nag ñaa bu ko yëkkati na ay kàddoom ak lu a xew daal ah, euh, euh, euh, moom moom bu ngéwél maanaam mënu ko sax tiital dina rafetlu si moom benn yoon loolu nag Omar gëm-gëm la yaakaar naa ne nag combat bu neex la boobu tamit. xale la boo xamante ne nii fi mu toll nii Boucar làmb ab dina am ci moom yaakaar ci taay bi ci yar gi ci fulla gi waaye ci bëre bi am na bu ngéwél itamit ko noonu moom itamit champion la ndaanaan la Papa Sow dina jàkkaarloo ak presse bi suba incha allah wax ci digganteem ak Siteu. wax ci digganteem ak Siteu moom Papa Sow incha allah rabbi suba fële ca place BCEAO la ñu wax ne rek dafa war a jàkkaarloo ak presse bi léegi nag looloo loolu la gars xewal léegi def face à la ba pare defaat open presse waaye ak lu mën a xew rek pour presse bi la ñu koy xamee noonu face à la presse koy def nga dem presse bi duñu nekk à l'aise nga dem presse bi gars yi di leen bundu xataal nga dem gars sax ñi ñi ànd ak mbër bi sax di dafa war a dépasser foofu open presse am tey presse bi nga ñëw nga bëgg def barrière dugal fa presse bi te mbër bi ñu ne open presse say mbokk say am di jàmm say xarit ñëpp nañ dem taxaw si ginnaaw bàyyi la ak presse bi ñu wër la ku nekk mën a am angle bu baax mën la jël image bu baax parce que tey li nga gis nii nii yëpp tey euh, fa seen photo yi ñuy def si journal bi yëpp tey presse moo koy génnee kon pour gars yi am image yu baax muy photo yu baax photo yu net photo yu rafet image rafet kon foog tey mbër bi ñu mën ko bàyyi ak presse bi parce que tey mbër bu si nekk tey da ngay soxla tey visibilité moo ñu ñi di la gis muy si si journaux yi muy si muy si YouTube bi te da ngay bëgg image bu leer image bu net mbër bu fi bëgg tey presse book sax da dem si journaux si journaliste yi tey ñu defaral la ko kon tey nañ joxaat journaliste seen àq joxaat leen seen cër bu mot yaakaar naa tey Omar loolu tamit da si am solo. ñi nga xamante ne ni ñooy wër mbëri Boucar ñu ci ëpp yokku lu ñu mbër mi dara ñoom ñoo bëgg feeñ au moo tax ñuy def yooyu ñuy def mais ñi amul mbër mi njëriñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo jege mbër mi di liggéey ca mbër mi tax Boucar bu yenn jataay amee pour nga gis sax problème lay doon mais am ñoo xamante ne nii ci noonu la ñuy mën a amee satisfaction ñu nangul leen ko te bañ leen koo bañal parce que nag loolu moom Boucar mooy yàqkat yi nga xamante ne ni ñi ngi fépp te ñëpp ko bokk. terrain gaal gi yaakaar naa ni itamit am na lu fa xewoon ci wàllu mbapat ki nga xamante ne ni moom mooy rajaxe rajaxe na ko toj na ko daal ba mu jeex. rajaxe na ko toj na ko toj na ko rajax Lamine la tudd nekk nag xale boo xamante ni tey làmb mu ngi koy bàyyi xel si lutte simple. waaye nag ni ma ko ko waxee keroog rek nee naa ko war nga mën a jot na rek nga dugg ci arène bi comme am nga staff nañ la lijjantal nga am combat arène parce que xale la boo xamante ni tey amaat moom mu ngi ciy la moo jël fële sa teenee gi daan fa Batista en moo nekk maanaam combat bu gaaw boo xamante ni tey ah, c'est nga gis combat mbapat bu gaawee noonu rawatina nag final waaye daal ah, xale la bu làmb war a bàyyi xel moom war a jaxe dafa mel ni ordinateur yi tamit wane na boppam ci Ndangaan Samb dimanche bi ñu génn moom tamit wóore na boppam fële ca Ndangaan Samb Ndangaan na dimanche bi ñu génn mbapat bu mag a mag a mag moom ordinateur nag ah, dafa mel ni nag nga xamante ne moo di poids lourd ya si kaw caatu ñu koy wax rek El Hadj Ndiaye moom tamit nekk xale boo xam ne ni te macha allah ndaanaan la waaye ordinateur moo ko fa mujjee daan yaakaar naa nag du mu ne bu leet ordinateur di ko daan kon nag weekend bi moom ordinateur ak rajaxe ñoo ko yëngal rëg-rëg sax fa la nekkoon dëkku làmb la boo xamante ni te des fois day abrité ay journée yu mag yoo xamante ni tey lutte simple lañ fay teg. yaakaar naa ni nag bu ko lii dafa neex parce que nag bu nit ñi di nekkee ci lutte avec frappe bi ñi nga xamante ne ni bëre semple moom moo leen di gënal moom moo leen di neex moom mooy ubbi seen xol itamit ñoom ñu kontaan parce que lépp lépp lépp dafay retourné waat ci làmb record daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni moom mooy métit ak naqar gi jamay kee am promoteur ndaxte dañu ne CNG nee na léegi 16 heures pile la ñuy démarrer combat yi. combat yu ndaw yi cinq ñaari cinq minutes dañuy bëre après ñu may leen temps additionnel Jamaïcain nag d'accord ci li nga xamante ne ni moom mooy démarrage bi parce que jàpp na ni yenn lamb yu ndaw yi mën nañoo xaar sax ba 17 heures xanaa ñu doo a commencé. waaw da jamaïcain d' accordul xam na ne tamit te du doon moom kese moo si dul d' accord parce que lamb tamit Omar dafa am ay réalité xam nga tey lamb ku ne xam na ne financement la investissement la nag doon di à court terme mais financement la tey ay millions ngay jël di ko def si lamb kon boo koy def tamit da nga koy def yow si ni ko sentiree ne boo ko defee noonu Omar tey dina la apporter xaalis waaye mënoo tey di organiser lamb di wut xaalis de gauche à droite di wut ay partenaires di wut ay sponsor di di fay avance lépp ba pare ay nit toog seen bureau Omar tey maanaam di jël ay décisions yoo xamante ni tey du méngoo ak tey yow tey sa liggéey ni nga bëggee mu dox qu'on se dise la vérité ku ne xam yoo xamante ni maanaam bu ñu koy jël maanaam kon dootul am sens CNG di fi nekk a di yoo xamante ni tey Omar tey day day si dara lu ñëpp maanaam tey mën a gis seen bopp wala lu ñëpp mën a jëriñoo lamb tey boo ko bëggee démarrer 6 heures c'est juste ñoom dañu bëgg lamb yi di teel a pour ñëpp mën a ñibbi si sécurité waaye nag ak lu mën a xew tamit Omar lamb tey boo ko bëggoo démarrer 16 tamit ah di dugg mën a fekkee yenn journée yi parce que 16 naaj bi day tàng kon yaakaar naa loolu yëpp tamit maanaam war gars yi war nañ si mën a trouver solution jamaïcain nag nee na loolu moom du ko tolérel Bira Sène benn yoon te pare na sax ba maanaam tey ñu tëj ko si waaye daal moom heure bu tëggee làmbam tey Omar kenn du fi ñëw bëgg a soufflé combat yoo xamante ni tey Omar euh, boo ko soufflé du ko arrangé te dëgg la wax am na fu la jëlee ndax mos naa dugg sax ci géew bi moom ne kenn du soufflé combat waaw loolu yëpp a waxtaan la rek te mën nga dem parce que CNG day yebal mbir mi nga dem wax ak moom xool nu ñu trouver parce que tey nga tëgg làmb tamit def sa investir sa xaalis tuddee ko parrain parrain bi ñëwagul ba pare wala parrain bi ne si yoon nga bëgg a souffler a a mën a la a mën a waxtaanee la ndax yaakaar naa loolu gën woon fës tey ci xëti waaw xët yi dafa mel ne loolu moo si gënoon a fës rek Omar di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal rawatina àdduna bi yëpp Omar parce que jàmm si la lépp xaj Omar di félicité waat rek di ko ñaanal maanaam yàlla jàmmal ko Omar Sadio Mané mën na yar ñëpp muy mag muy ndaw mën na yedd ñëpp Omar fii lu fa waaye di am am na ku la ko ëppale da ngay gis ku am xaalis beew da gis ku ku am alal arrogant da gis ku am ala Omar yore ko boo xamante ni te nit balaa nga xam ne doo dara Omar nga feebar wala nga faatu wala wala nga faatu Omar ay nit ay nit la nar a sang kon loolu yëpp Omar na si nit ñi di bàyyi xel doomu aadama nag moom la yàlla moo ñaalee fàtt fàtte ak bëgg-bëgg loo am alal da ngay bëgg mu yokk des fois nit sa mbokk faatu sax nga nga def rétrospection regretté ne man de su ma jógee si li dinaa bàyyi waaye deux jours da ngay fàttewaat nekk ca la nga nekkoon wala nekk ci lu neexul yàlla kon loolu yëpp Omar nañ siy sóoraale àdduna bi dafa yàlla suñu borom nag moo yor lépp waaye Sadio Mané moom référence na si Sénégal que bu dee alal am na ko am na koom waaye am noonu am na yar am na teggin waaye loolu lépp Omar dañ ko sant suñu wayjur yi rek parce que yar moom Omar boo ko amee rek euh, am ama munoo fay ki la yar parce yar mooy lépp te Sadio Mané yar gi mu am nii tey Omar bi sax Sadio Mané daf leen jaaxal parce que yar gi mu am teggin gi mu am ak alal gi mu am notoriété bi ni fi mu yegg si àdduna Omar loolu lépp mooy maanaam tey yar moo am solo ku ko amul amoo dara amal ay milliards nag parce que da ngay gis ku ñu booleeg alalam duma ku ñu booleeg xam-xamam duma waaye ku ñu booleeg yaram Omar duma doo ñoo ngi koy ñaanal jàmm yàlla jaamal ko man moom football li ma koy suivre bëriwul man moom mën naa ne su ma amee demee ba am jour sax Krépin Diatta mooy sama jour moom laay bëggee waaye nag Sadio Mané yàlla na ko yàlla defal jàmm. moo tax ñu jox ko euh, joueur bi gën a social ci monde bi ndax li mu def bambaali sagal ay mboqam sagal ñëpp ba pare leneen li nga xamante ne def na ko dugg ci histoire depuis George Weah ba léegi mi ngi doog a bokk ci trois premiers ballons d'or rawatina mu jël deuxième yàlla na ko suñu borom bi ful. ba mu jël ko nag doon première am nañ si yaakaar di leen jox dig daje ba suba jàmm incha allahu rabbi mbokk yi. jërëjëf combat le ci at bi ak at yi ñëwoon la ñu passé. a a xeex. loo xamante ne ñu ñëw ay 5 yi noonu. ku affronté xeex ak ñoom ñu reculé xeex ak Ama Baldé mu reculé xeex ñëpp ah bu nee la di xeex ak Siteu kañ. kon dama pare li ma pare moom na ko pare rek combat bi nu mu mel ci moom. dóorante ba ba ne saay. ba mar naan dem naa leen di wax man loolu laa gis combat ba. te bu la neexee bu def dara. dinaa def dara kay. waaw kon day gën